ñu ngi leen di nuyu faral di ñu seetaan ci euh, Leral TV euh, ñu def déplacement ñëw fi nga xamante ni moom mooy Rufisque Rufisque ko wax wax ñi euh, nga xamante ni bokk nañu ci première ville bu Sénégal gis ngeen fi nga xamante ni mooy fi ñu taxaw ni mooy kër kaw fii nag population dañuy obligé di patauger daanaka ci nawet bi ci coono bu métti métti la ñuy dund fi nga xamante ni moom mooy ci seen dëkkuwaay yi fii nag mu doon centre ville état bi nga xamante ni moom la dëkkuwaay nekk ak la ñi nga xamante ni ñooy askan bi mu métti loola ndax euh, gis ngeen ko noonu ndox mi bëri na euh, bëri na bëri boo xamante ni saa su tawee kenn du mën a génn kenn du mën a mener activité activités euh, donc askan wi yi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk dëkk ci coono jëkk ci ñax ndax li nga xamante ni mooy jaxare di taal di tàllal loxo li nga xamante ni ñoom ñooy nguur gi ngir ñu jàppale leen ci situation bi lée alors dañuy leen jox kàddu ñoom ñu àddu ci ñi xamal ñu situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund fii fii këri kaw la ville këri Kaw fi nga xam ne fii la mairie bi nekk fii la police bi nekk fii la préfecture bi nekk fii la conseil départemental nekk ak Sénélec ak BICIS chaque année nii la ñuy dundee ci nawet bi chaque année bu bu tawee ba sebet ñii ñëpp dañuy tëj kenn du fi liggéey c'est pour cela man je pose la question ndax Tëngéej gi ñoom am nañu ay autorité fii loo xam ne chaque année nga répété ko chaque fois c'est comme nit ñi dañuy dugg ci kàmba yi di daanu pax yaa ngi nii ñu ubbi kenn mënul dem kenn mënul ñëw boo amee soxla police mënoo dugg soo amee soxla préfecture mënoo dugg mairie bi ci boppam dafay inondé léegi je pose la question ana ana ana autorités yi ñuy wax ne ñoo nekk fii ci Tëngéej ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu waroon a jàppale anañu kenn gisu leen depuis ce matin bi taw bi kii ak léegi gisoo conseil départemental a ngi nii tout près ah. camp GMI baa ñoom dañuy am sax problème pour génne dem intervention police dañu am problème pour génne def intervention parce que amuñu fu ñu jaar léegi je pose la question nag ñun ndax am nañu ay autorité dignes de noo nom wala déet feebar la mën a andil nit ñi parce que yooyu bari nañu fii bu ndox mi demee ban bi moo fi des mu ngi nii gis nga ban bii ngay gis nii su ndox bi banee ci bi ci biir ndox mi ngay taale say añ soo duggee ci kër gi ndox maa ngay folote ci biir ndox mi la jigéen ñi di xuus di taali ji seeni añ léegi ñun fan lañ ko mën a jooyo du état moo ñuy dimbali du mairie bee ñu dimmali du kenn nii lañ ñuy seetaane à chaque fois nii la ñuy doo gis autorité bu fi ñëw taxaw du maire du kenn ñun ñoo nekk fii di toog jàpp ci yàlla di àndoo xëy gis nga ñu atelier ñii ñii seeni atelier la ñu yor mënuñoo liggéey ñu nga ne borom télé yi gis nga ndox mi yóbbu na seen télé yi waaw ñii ñi nga waroon a liggéey seen liggéey mun mënuñoo liggéey loolu moo fi xew. gis ngeen këri kaw ni mu mel bu tawee kenn du génn bu ñu xëyee bu ta fanaanee taw bu ñu xëyee du ñu ndekki du ñu añ ndax amuñu fu ñu jaar ubbi ko ndir yi bàyyi ko nii suñu néeg yëpp a yàqu léegi nànk-nànk lay dem ci fajar ba tey boo génnee dangay ngay si biir. ndox yaa ngi nii suñu kër suñu néeg yëpp a yàqu dindi nañ tapis dindi nañ lépp tailleur bi moom ngacc na ba sonn te police a ngi nii Sénélec a ngi nii Sonatel a ngi nii lépp ci këri kaw la am préfet ngi nii lépp ci këri kaw la am te mënul fexe ba ndox mi bu tawee ndox mi dem ñun moom nawet zéro. boo demoon ti marché bi sa sera plus pur que ça boo avancé woon nii police mënoo faa dugg boo soxla woon kayit tey police mënoo ko am boo jàppoon sàcc tey mënoo ko yóbbu police. police mënuñoo liggéey fi mu toll nii parce que amuñu amuñu lu ñu liggéeyee ndox maa ngi leen baare foofu dañ leen war a dimbali ñoom itam boo fi mu toll nii boo amoon dara tey doo mën a am kenn ku la defal intervention parce que police mënul génn ndox maa ngi leen téye léegi ana autorité amul kenn ku génn fii pour ñëw xool situation bi ni mu demee fii dara. monsieur le maire mu ngi dëkk fële ci gannaaw à Mérina son adjoint mu ngi dëkk fii ci kanam. beneen conseil yeneen conseil yaa ngi fi mais kenn toppatoo wuñu këri kaw mu ngi ni chaque chaque année c'est comme mu ngi ni saa yu tawee nii la ñuy dunde ñoom ñëpp boo jàddee nii ci gannaaw Paate Njaay nga foofu kër yaa ngi ni ay yëpp ay ñi ñëpp membre de APR ana amu ñun amuñu kenn ku ñu jàppale ñun ñooy jàppale suñu bopp ñun ñooy toog fii bu ndox bi jéemee ñun ñooy jéem a gas ay pax fii pour ndox mi dem ah benn kër maire a ngi nii benn a ngi nii adjoint mais conseil départemental mu ngi nii moo gën a jege ah mais amuñu fi benn njëriñ defaluñ ñu dara. saa bu tawee wis wisal rek bi gën a ndaw rek day fees ba sunu néegi barki démb rek dafa fees ba sunu néegi dafa yàqu yaxet muy fee ndoxu duus yeeg ndoxi taw yeeg kenn xamul salte yëpp ci biir kër gi ñoo ngi nii. kuy dem ci police bi dan lay boot. kuy dem marché da ngay xuus sànq bi may dem marché rek dama doon xuus mi ngi nii ma jëndale xale yi ñi ma ñu gén lép maa leen ko doxal doog toog sama doom yëpp ay ni seen tànk yëpp ay picc laa ki góom moo tax léegi ca laa jógee ba nga ni depuis nawet ba léegi du ma nangu ñu génn man maay dox lépp maay dem marché maa leen jëndal lépp doog a toog xale yëpp a feebar waaw te daal dëkk bi metti na daal waaye nag yàlla baax na waaye nag lii moom rafetul rafetul ci dëkk bu toll ni këri kaw gis ñu kenn kun dimbali gis ñu kenn kun ko ku mus taxaw fii rek wax si wala nga def si mosuñu koo gis waaw sonn nañu wax dëgg yàlla bu nu moon kun dimbali ci lii daal ñu sant moom. sama waa kër instant yi tey dañu feebar fan yi yëpp ndax ndox ndoxu duusu ndoxu tali bi mënuñoo fu ñuy jaar suñu lal bi yëpp yàqu suñu matelas yëpp yàqu suñu bagage yi yëpp yàqu kon dimbali leen ñu. dimbal lañu ngir yàlla dimbal lañu jàppal lañu ñu defara ñu dimbal lañu ngir yàlla dimbal lañu fu mu toll nii sonn lañu def sama tànk yëpp def xar dafa yàqu mu ne nee na xaw ma ndox mu siti xaw ma laal ndax ndox mu bon ci kër gi laa laa dëkk ça fait plus de 17 ans mais depuis ma fi nekk chaque année hivernage moom dootuñu am jàmm dootuñu am salaam tey sax suñu ma ay wax ne ne wax nañ ne ndox mi sax bariwul parce que ndox mi day dugg ba ci biir a biir biir a biir boole ci des problèmes yoo xam ne ne kenn jégg na doye xale yi mënuñu génne ñun jéegi kenn mënul dem marché kuy dem da ngay xuus soo xamee sax fa ngay jaar parce que gis nga ko na jël plan bi fii yi yëpp ay caniveau la kon c'est risqué de sortir problème bi daal ñun sonn nañ ci daal ñu ngi nii daal ñu ngi nii daal ci loxo yàlla ku ñu ci jàppale nag ñu jël parce que nag këri kaw melul woon nii bu ñu naan këri kaw dañ ne ville waaw ñun ñooy centre ville bi mais tax na centre ville bi léegi moo gën a mbalite ñëpp non seulement au pluviales yi ñoo fi nekk mais eaux usées yi ñoo caq sox eaux pluviales yi moo tax ngeen gis mu mel nii ñuul kukk waaw ñu on n'est pas à l'abri des maladie ñu ngi nii yooyaa ngi ñuy bëgg a rey mbott yi indi ngoog ngoog yi guddeex bëccëg kenn nalawati ñu ngi nii daal ku ñu mën a jàppale daal ñu jël waaw loolu la loolu la daal. gis nga bu ñu ngi nii ba ñu xëyee ba léegi kenn mënul ndékki amuñu fu ñu jaar ba jëndi mburu ah lii moom macha allah bu ñu gisee ku ñu ci mën a dimbali rek te yàlla tax jàppale ñu ci rek mu jàppale ndax maire yu bari maire yu bari jaar nañ fii te taxul tëngee changé amul benn changement amul benn changement vraiment vraiment ñuy ñaan nag autorité présidentielle présidence. ñu dem ba ci président mu xool lii dimbali ñu ci tëngéej gi te yàlla tax mu ñëw dimbali ñu ci ndax président fi ñu toll nii moom mooy ndey ji réew moom moo boot dëkk bi kon nag bu ñu amee li ñu war a mën a ñaxtu ci moom la ñuy jaar dellu gannaaw nag di ko ziar di ko sant di ko gërëm ñu ngi nii ci paranteer yi la ñuy taxaw di yëndu amuñu fu ñu jaar vraiment daal. ñu ngi ciy ñaan daal gouvernement bi jàpp ci bu baax daal jéem a xool ni muy organiser waatee Tëngéej defaraatal ñu suñu Tëngéej gii ba mu baax ndax Tëngéej kat patrimoine la. amee fi dëkk parce que comme fi amee sama teraanga fi dëkk donc euh, lii li ko wax loolu moo loolu moo moo si nekk gis nga tout près police baa ngi nii suñu ginnaaw santel baa ngi nii suñu ginnaaw donc fii gis nu mel bu tawee fii ni leen mel sax tane na mu tax ma gën a bay du dugg ba ci biir fii moom waxaale ma ko fii waxaale ma fii moom waxaale ñu bëgg mooy pour suñu mooy waa dëkk bi ñëw ñi nga xam ne ay ñoo dimbali ñu si lii tëj canal yi ndox dem donc loolu daal mooy suñu métit ñu ngi leen si oo gis oo bépp autorité bu ne si Tëngéej ñu ngi lay pour xam ne lii moom vraiment lu ñaaw la Tëngéej war na mën dépassé mu ñu en 2023 Tëngéej di mel nii comme jamono jamono yi nga xam ne c'était en 1960 ba léegi Tëngéej mel loolu c'est pas normal ñu ngi lay si oo yee ñëpp nag leen wax ne vraiment suñu cri de cœur mooy ngeen ñoo ngeen dimbalu ñu ba lee mën fay jóge assainissement bi assainissement bi dañu bëgg ñu dimbali ci bu tawatee ndox mi que da ngay soxla tey jii gis nga bu ñu demoon nii ci tey boo fa bëggoon ab signature amoo ko parce que amuñu fu ñu jaar pour signer la ko mu ngi noonu loolu mooy suñu problème ñun ndox mi mooy suñu problème depuis des années mu ngi fi te fii ay autorité rek fi dëkk ah amaluñu amaluñu fi benn njëriñ fii ci quartier bi. léegi dañoo bëgg nag ngeen jàllaleel ñu wax ji ba ñu xam ne Tëngéej ça ne va pas depuis des années c'est comme ça ci biir ndox mi la ñuy ci la ñuy fanaan dañuy xuus. ñàkk mëne seen activité feebar ak li nga xamante ni moom la ndox bi du jur fii nga xamante ni moom mooy Rusfik dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni moom la ñàkk mëne seen activité feebar ak yeneen yi nga xamante ni ay jafe-jafe la moom la ndox bi di euh, jural waa Rufisque fii nga xamante ni moom mooy euh, Kër Kaw dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni ñoom la euh, ñoom ñi fi dëkk yëkkati rawatina ci li nga xamante ne mooy situation bi ñu dund ci nawet bi muy loo xamante ni mu diis lool mu ñuy talal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy la municipalité ñu daal di leen jàppale naam def nañu ay travaux pour canalisation bi mais ba léegi kenn mënul dem kenn mënul dikk saa su tawee rek ñëpp daanaka ci seen biir kër yi la ñuy des kenn du mën a génn mëne sa activité tout près am na sous préfecture bu fi nekk la police mairie bi tamit daanaka même situation bi moom moo fa nekk donc muy loo xamante ni ah, sonal na waa Rufisque rawatina waa Kër Kaw ñi nga xamante ni ci digg euh, dëkk bi la nekk mooy euh, le centre ville c'est une situation précaire dont vit euh, vivent les populations de cette localité ils sont dans le désespoir ñu ngi tàllal loxo ñi nga xamante ne nguur gi ñu assainissement boo xamante ni dina leen mën a permettre ñu mën a seen activité euh, librement fii ci Rufisque ñu ngi leen di gërëm di leen sant jox leen dig daje ci yeneen bërëb euh, ci euh, Sénégal jërë ngeen jëf Leral TV